alhamdulillahi rabbil alamin bismillahi arrahmani arrahim wala hawla wala quwwata illa bika ya aliyu ya azim subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alhakim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa sallallahu wasallama ala ashrafi alaalamin sayidi alawalina walaaxirin allazi naala min almawaahibi aljalila alaaha wa faaqa min alajnaasi dakaraha wa unsaaha wa sumiya inda allahi bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi alkiram wa sahabati alidam wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmi ddin amma baadu ayuha almuthahiduna alkiram fi télévision sunu label tv nuxayikum bi taxiyati alislam taxiyatan mubarakatan min indillahi tayiba wa ya salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki jullit yi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 ziyaar leen balu leen xaq leen ko ndokkeel leen ñaan sunu borom yal na dolli jàmm ci réew mi dolli ko ci réew yu ko wëri yépp bi jaahi Mustafa sallallahu alayhi wa nuyu kilifa diine yi nuyu wayjur yi nga xam ne ñooñu bokk njaboote ñaanal leen yàlla yàlla dolli guddal fan yi dolli wér yi ñaanal bu baax sunu directeur Hadj Makhtar Sylla yàlla taxawu ko teg loxo ci mbiram yëpp ba fa mu bëgg mu yegg yàlla may ko tawfiix ba mu yeggale ko fa ak sago nuyu personnel bi ci ginnaawam yëpp jagleel ti nuyoo soxna Ayda mu yóbbaale personnel bi yëpp géew ñaan sunu boroom ñi nga xam ni ña nga ca yoon wa di ziyaare ji sayyiduna muhammad yal na yàlla teg ñëpp ci yoonu jàmm dellu siwaat ci jàmm sunu fet gu màggit gi nga xam ni ñoo ngi koy waajal mu ngi jub si di iidul adha ñu gën ko min ci tabaski yal na defal ñu tawféex ba ñu fekk lépp lépp ak sago kenn ku nekk la mu cay dagaan yal na ko yàlla defal bu mën caa bégal njaboot ga bi jaahi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñu ngi ci tarbiya muy yar démb bi ñuy tàqali ko moo xoon ni bu ñu delsee danaa samp benn góor gu yàlla samp ci alquranul karim won ko yonent bi pour yonent bi won ñu ko ne mboolem ku bëgg a yar conseil naa la yarkat bu mag bi nga xam ni ku yare na mu yare sunu borom nee na réussite nga ci yar kon la ma la waxoon ca ba ñuy démarrer ci at-tarbiya ma ne la woon yow mi perte nga xam ne am nga loo ñàkk ci lu ustaas bi waxtaane nu ma koy daboo kon man ak yow mën nañ ko dabu fii tey am nañu ay doom ñu ngi commencé màgg mais nañ ko dabu ci luqmaan mooy li luqmaan def ak ay doomam est-ce que ñun jotul ñu koy def ak sunuy doom wax naa la ko démb ci émission bi mujj ma wax la ni wa zeynul fata la alaaj Mansour wax baada tuqa adabun mu ne yëgal ni nit li koy taaral ginnaaw bu am na yàlla bu dee am na yàlla tagal yàlla bu de ma ngi ci moom ginnaaw loolu laa wax lii taaral doomu aadama ba ku ko gis kontaan ci moom ñu ne mu ne yar yar mbokk yi lu nit def ci njabootam te deful ci moom yar li mu def du dara ci njabootam waaw waaja nag yàqoon na doom ja moo taxit doom ja yàq kër ga yàq doom ja la def reewal ko ba mu reew Moussa lu doom ji laaj waa ji joxe waa ji sax bañ ne ko buy génn danaan doom ji lu xew ci kër gi su ma ñëwee wax ma ko Moussa xanaa am na ñoo xam ne alag nañ seen njaboot xam nga nga nga gis maam di ya leen gis sax yaay yu koy def naan ko towal ma fii ci ëtt bi lu fi xew rek su ma ñëwee wax ma ko non yow yow xamoo ni yow doo éducateur yow doo yarkat li nga def boo xamoon nu mu tudd mooy jàngal sa doom fen loolu nga loolu nga commencé ci moom te xamoo fu mu jëm moom ñoo ñooy dem ba doon xale yoo xam ni mënuñoo toog te fay noonu bu nu fenul sax duñu duñu nekk en forme fekk ndayee ko ko jàngal te yëg ko sax moo tax dama bëgg ñu vigilant tuuti ci doom yi nañu defaat taxawaay waa ja yàq doom ja heure bu wàccee lu mu wax laaj doom ji wax ko lépp benn bis mu wàcc na doom ji njëkk rek doom ji daw gàttandu ko papa tey naa li fi xew ci kër gi mais nag may neexal dama laa bëgg a wax sama yaay ak bëccëg maan bi lañ doon def dama la kaa bëgg a wax papa ji ko wax moo ko ne ko neexal ma papa xaalis jox ko Moussa pour bëgg rek mu gaaw wax mu ne papa xam nga sama yaay ak bëccëg maan bi luñ doon def mu ne ko ah. mu gis nga yaa ngi fàttaliku la ko doon def ak mbindaan mi ah, kër ga tas ah, kër ga tas waa ah, kër ga tas bari na ku bàyyi sa doom muy wax rek ngay reetaan kaay ma wax le bëccëg ngi ñëw kër gi tas ci waxam yooyu sunu yaraat sunuy doom waaye moo tax ma wax leen ne nag yow mi rate yooyu yëpp léegi nag sampal naa la góor goo xam ne alxuraan a ko samp nag alxuraan nañu wax nag léegi yow nag mi bëgg a yar nag sa doom moo xam màgg na moo xam sax xale bu góor la moo xam sax xale bu jigéen la bu war a dugg ci néegu sëy defal léegi ni Luqmaan defoon maan benn góor la gu baax gu tedd alxuraan tudd ko sunu borom sitee ko bi mu demee ba xam ne àddunaam léegi mu jeex mu yëg ni moom daal njaboot la fi nar a bàyyi te moom day dem dafa woo njaboot ñu toog mu ne doom tëjal bunt ma waxtaan ak yéen doom bi tëj bunt bi mu ne ko doom dama amoon ay conseil yu ma leen bëgg dénk balaa may dem àllaaxira baay lan la mu ne ko yaa bunayya laa tushrik billah dama bëggoon yii ma leen di dénk nag bu laajee enregistré ngeen enregistré ko doom doom bu laajee ngeen jël ko whatsapp jël leen ko ak whatsapp doom bu laajee ngeen jëli seeni kaye bi fooy andi di bind jëf leen ko doom Moussa lii Luqmaan def ak njabootam ñun ñëpp danoo war kër gi tabax nañu ba mu rafet Moussa da ngay dégg kër gi lépp la ñuy tabax wax ba wax sax defar ba defar saalo fowukaay mais saal bu papa di toog di waxtaan ak doom yi oriante leen ci diini est-ce que ñu ngi koy bàyyi waale xel ci kër yi est-ce que ñu koy defar am ku ci nekk waroon nga yow papa am benn fauteuil boo xam heure boo fa toogee ñu xam ne tey papa daa war a tey dañuy waar maanaam doom yépp toog diglu la nga yee leen ci àdduna bu leen fàtte moonte ni ñun amoon nañ ay maam guddi daal na jot ñuy téye di ñu yee ci àdduna amoon nañu ay baay ak i ndey daan nañu tëdd ak seeni doom di leen yee ci àdduna daan nañu toog bëccëg seeni doom di leen yee yar leen mbokk yi ñun kenn ku ne nee nga taloo loolu ngir lan Moussa ñun dañuy daw rek <laughs> dañuy daw di daw ba 11h ci guddi jot 23h ñu ñëw tëdd 6h <laughs> du matin nga daw génn di daw rek mbokk yi d'accord daw baax na de. waaye dawa dawa dawa dawa daw ba gaare li nga daw yëpp tudd zéro est-ce que it dawoon tuuti gaare defar ba pare dawaat est-ce que gënu ko parce que bari na koo seen mu dawa dawa daw Moussa ba gaare ndekete zéro la daw li mu daan daw zéro la parce que réussitul ci njaboot fenn mbokk yi te nag mooy zéro Luqmaan ne nag doom toog leen ma waxtaan mbokk yi ñun ñëpp nag nañu déglu waxtaanu Luqmaan gi ak njabootam ku ci ci ñun maa ngi lay ñaan del jaar ak say doom léeg-léeg woo leen doom maa ngi leen di ñaan laa tushrik billahi bu leen bokkaale yàlla Luqmaan loolu njëkk a wax ak ay doom Musaa baat bi nag néew nu ko woo sa doom di ko waxtaan ak moom de xoolal boo man dem nañu sax ba ñun jàpp nañ ko waxtaan ak sa doom est-ce que booy duñu wax paa dafa dof <laughs> est-ce que booy duñ génn pa xel mi demul paa xel mi dafa mel daa dem de <laughs> te billahi waxtaan la lu nit war a fàttali doom la doom bul bokkaale yàlla doom inna shirka la zulmun azim doom yëgal ni bokkaale yàlla dafa bokk ci bàkkaar yi gën a màgg ci àdduna yi yàlla dul baale mbokk yi lii ñëpp ko wara a wax doom mbokk yi bokkaale gii ne ci réew mi ñan ñoo ko def ah sunuy doom la day kan la maanaam ñun dong ñooy bokkaale yàlla ku bokkaale waaw ah, mais mbokk yi yow nga ne loolu doo toog say doom fàttali leen ko wax leen lan mooy bokkaale maytu leen ko bàyyi leen yaakaar ku dul yàlla bàyyi leen topp ci ginnaaw nit di daw amee yooyu ay conseil la doo ko conseil say doom soo ko bàyyee ba mu jël boppam wekk ci ginnaaw nit defe ne kookoo yor àddunaam ak laaxiraam yow bokk nga ci ñu ko sànq parce que waxoo ko dara xamul ci li muy def dara moo tax Luqmaan ne doom dama leen di la ñaan bu leen wékku ci ginnaaw kenn wekku leen ci ginnaaw yàlla lii nag damay ñaan kenn ku ne léeg-léeg del woo sa doom di ko ko wax doom bul yaakaar kenn doom bul wékku ci ginnaaw kenn doom bul defe ni kenn la yu yor doom jàppal ni sunu boroom boo ko jaamoo na ko war a jaamoo def la war sa digganteeg moom doom toogal xaar yàlla la war sa diggante yaak moom moom mu defal la ko mbokk yi lii dañ ko war a gëmloo sunu doom dana tax sax ñu dalaale dana taxit kenn du leen fooye parce que Moussa nit ñi dañu téye suñu doom ñi di leen manipuler ah, di leen fooye yàlla xam na ko da ngay gis ñuy manipuler xale yi di leen fooye waaw xam nga jékki-jékki nekk ci dëkk jël xale yi dajale leen di leen fooye laaj ay cotisation yoo xam ni xale yi dañuy daw di ko wuti duñ ko sax am seen àllu ndey ak seen bàyyi la ñuy sàcc di la andil parce que yow yow lañ def ne nañ yaakaar lañ yaakaar àdduna ak laaxira way xam nga xam nga lii mooy ak tappale tappale goo xam ni kenn xamul tappale gi fi mu jëm ñun ñëpp ñu toog di seetaan loolu kenn ci ñun bàyyiwul xel loolu mbokk yi loolu kenn ku ne yëgal ni ak waar la gu la war sa digganteek sa njaboot mooy lan fexeel ba ne ko doom bul yaakaar kenn doom bul jël sa bopp di dénk kenn ku dul yàlla yow daal doom heure booy julli yëgal ni yaa ngi wax yàlla iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu mooy yàlla man yow laay jaamu yàlla su ma sàkku su may sàkku ndimbal ci yow laay ñëw nga dimbali ma mbokk li nag ko gëmloo yàlla ba noppi ba wax ko ko war ngaa rusatee dem ci kenn di ko jaamu waaye it war ngaa rusatee dem ci kenn ne moo yor sa àdduna ba tax bu la waxee sëggal nga sëgg su la waxee siggil nga siggi su la waxee jàddal nga jàdd su la waxee nangam nga def ko mbokk yi nañu bàyyi xel bu baax ni Luqman di yare doomam man ak yéen dañuy topp Luqman benn baat par benn baat parce que fan la tàmbalee ci baatu bokkaale loolu la njëkk ak doomam waaye Luqman bàyyiwul doom ji ne leen bind leen doom yi bind ne ko waa bàyyi lan moo ne ci bokkaale mu ne ko kaay ma wax leen de doom yàlla mën na muñal nit ñi lépp ba mu des ko ko bokkaale inna shirka la zulmun azim xale yi bind yëngal bopp ne ko dégg nañ bii mu ne doom maag yéen bi ci des suba insha allahu rabbi fii lay doon sunu Label TV daañu fi dajewaat ma waxtaan ak yéen bi mu daanelee boobu ana ban la joxaat doom ñaan sunu borom yal na yàlla defal ñu dégg ak topp bi jaahi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam waxtu ma dab waaye Luqmaan a ngi toog ak doom yi yéen ñi àndoon ak man nañu yëg ni Luqmaan noonu mu toogee ak doom yi la mu leen wax ci ay baat lu mu gàtt-gàtt mat na juróom ba juróom-ñaar man ak yéen daanu ko ànd fii ci sunu Label TV benn bu jëkk bi daal ma ngi noonu kenn ku ne neel oustaz nee na kon nañu tàmbali di waxtaan ak sunu doom yi di leen wax ni bàyyi leen di yaakaar kenn bàyyi leen di wékku ci ginnaaw kenn yaakaar leen seen borom wékku leen ci seen borom te bu leen ko bokkaale kenn mbokk yi bii na doon sunu première bi nuy ànd ak sunu njaboot di ci waxtaan ak ñoom yal na yàlla defal nu dégg ñu defal ñu topp te orienté sunu bopp orienté sunu njaboot teg ñu ci yoonu njub fi ko yàlla bëgge bi jaahi Mustafa sallallahu alayhi wa mbokk yi maa ngi ñaan sama borom yal na yàlla may nu nunu fekkaat suba mën ak yéen bi jaahi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam gërëmaat nañ ñëpp santaat nañu ñëpp ñaan suñu mujj kàddu yàlla na doon kalimatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi alayhi salaatu wasalaam waaye eh, sunu mag ja Haj Malick Diop ñu ngi koy ndokkeel di ko ziyaar di wax ni bi su daara ji inchaa allahu rabbi mi ngi war doon la 25 ñu ngi ñaan sunu borom yal na defal ñu tawfiix ba nu fekk ko ci barke sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëpp ñu ngi leen cay invité incha allah ca Thiès ñaan yàlla na yàlla defal ñu tawfiix ba nu fekk ko asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu